mbokk yi alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain xam naa ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ci lim ñu wërsëgalaat ñu daje ci am néegam ku seeni jël benn bind bu jëm ci wàllu wàllu fiq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu daan wax ni man yuridi llahu bihi xayran yufaqihu fi ddin suñu borom bu nammi ci jaam bi yiw da koy xamal diineem fiq boo ko déggee mooy li rot ci alquran ak sunna boroom xam-xam yi jël ko leeral ko xeet bi loolu mooy fiq su ko defee téere bi ñuy sukkandikoo mooy téere bi di minhajul muslim bu cheikh abou bakar aljazairi rahimahullah tey jii mooy juróom-ñareelu fan ci weeru safar sun maam yi di ko tuddee diggi diggu gàmmu jàpp naa mooy le cinq encore ci weeru septembre ah mooy le quatre ci weeru septembre mi ngi noonu ci deux mille vingt deux ñi ngi war a dal tey li ñuy tuddee ci wàllu riba wa sarf ñi ngi tolloon fu ñuy wax ahkaamuhu foofu la ñu war a dal tey dañu nekk mooy page trois cent trois cent sept waaw ñu ngi ci page trois cent sept bu dee ñu yor mool ba bés bi mooy wàllu riba fi muy tudde ahkaamuhu usulu ribiwiyaat sitta mi ngi noonu ala kulli xaal bu dee bokk nañ ko gis day wax ni lan mooy atte ci wàllu jëflante ci riba boobu mu ne usulu ribiwiyaat sitta wa hiya azahab wal fidda lii di cosaan ci loo xam ne jaayante ko wala leblente ko riba da cee mën a dugg juróom benn mbir moo nekkoon cosaan ba ca yonent bi alayhi salaam tuddoon la ca jiitu mooy or ñaareel ba mooy xaalis pur ñetteel ba mooy alqamhu nga xam ne mooy blé wa sha'ir di la ñuy tudde orge wa tamru di tandrama wal milhu ak lii nga xam ne mooy xorom li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam az-zahabu biz-zahab koo xam ne day day bëgg a weccee or ak koo ak or wal fidda bil fidda wala mu amoon xaalis piir bëgg koo wecceeg beneen xaalis piir mi ngi noonu wal burr bil burr wala nga amoon sa blé bëgg koo weccee sha'ir nga amoon sa orge bëgg koo weccee bi sha'ir wa tamr bi tamr tandarma ak tandarma wal milx bil milx wala xorom ak xorom yii yépp ku ko bëggoon a wéccee day nekk mislan bi misl fokk day tolloo sawaun bi sawa yemoo ci yemoo yaddan bi yadd muy loxo ak loxo fa fa izaxtulifat hadihi al asnaaf suñ demee ba mu wuute juróom benn yi fa biu kayfa shi'tum jaayante leen lu mu leen neexe ida kaana yaddan bi yadd su dee ne day nekk loxo ak loxo mbokk da ngay xam ne àdduna dafa changé léegi doomu aadama yi li ëpp la ñuy jëflante mooy ab xaalis waaye bu jëkk sun maam yi quatre-vingt-dix-neuf pour cent échange la daan doon muy trop lépp loo bëgg da ngay indi joxe kii ñu jox la la ca des bokkoon na jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam juróom benn yi dañ daan gën a jëflante yonent bi nag ne walla waaye koy jëflante ci lii na ko yemele waaye bu mu ko ëppale doonte ne loolu mënoon na day da dal tey suñu jigéen ñi masalan nga amoon benn chaîne or boo xam ne cent grammes lay doon nga dem jox ko tëgg bi pour mu jox la yeneen chaîne boo xam ne moo gën a bees waaye boobu quatre-vingt-dix grammes lay doon wala quatre-vingts grammes islam du nangu jëflante boobu maadaama or ak or la buñ koy échanger dañ koy yemele mi ngi noonu juróom benn yooyu la yeneen ci bi tudd waaye yow mi yor sa téere mu ne wa qaasa ahlu lilm min alsahabati waltaabiina wal aimma rahimu rahimahu llahu alayhim rahmatullah alayhim mu ne nii it la ko la ko la ca boole qiyaas ya boroom xam-xam ya nekkoon ca sahaaba ya ak ña topp ca ñoom ak njiitu diine yi kullu ma ittafaqa maa hadihi sitta fi lmaana wal illa bépp façon ñam boo xam ni buñ ko xoolee day dëppoog lii yonent bi tudd ci melokaan ak ci njëriñ dañ koy boole ci yi nga xam ne dañ koy dugal ci li ñuy tere ci wàllu riba min kulli makiilin aw mawzunin matuumin mudaxar ca loolu mooy lépp loo xam ne mënees na koo jël di ko natt wala ñu koy jël di ko peser di ko mën a dunde di ko mën a denc bépp façon ñam boo xam ne suñ koy jaayante dañ koy pesé wala ñu koy natt nit mën na koo dunde te mënees na koo denc loolu day dugg ci riba su dee ne dañ koo ëppalante wa zalika ka sairul xubub te loolu mooy mboole mi pepp mboole mi pepp boo ko bëggee jëflante da nga koy yemele bu dul loolu day dugg ci riba wa zuyut mboolem loo xam ne dañ cay génne ak diw olivier moo tax sunu maam yi boole ci woon gerte mi ngi noonu ne dañ koy génnal azaka te it dafay dugg ci wàllu boo koy weccee doo ko ëppalante walansal lii di lem walluxuum ak mboolem façon yàpp yi qaala saïd ibn almusayab rahimahullah imam bu mag boobu nee na laa riba illa fi ma kiila aw wuzina mimma yu'kal aw yushrab mu ne bu ñuy tere riba di jëflante di ko ëppalante mooy loo xam ne dañ koy natt wala loo xam ne dañ koy peser di ko lekk wala ñu koy naan kon lépp loo xam ne buñ koy jaayante kenn du ko natt ak pesé masalan lu mel ne ay xaal yaag ay yu demee noonu loolee du dugg ci riba bu dee ñaareelu tomb bi mu ne arriba fi jamii ribiwiyaat yakunu min salaasati awjuh tey buñ la doon xamal l'islam nan lay gisee jëflante ci riba da nga naan ci ñetti mbir lay doon ñetti façon mbir al awwal an yubaa al jins al wahid bi jinsihi ka zahab bi zahab mooy ñu jaay mbir boo xam ni lañ koy jaayante ñoo bokk kii ñëw di jaay or di ca jënde or awil burr bil burr muy jaay blé di ca jënde blé awil tamr bi tamr muy jaay tàndarma di ca jënde tàndarma mutafadilan mu gënale ko ca mooy indi masalan ñetti kilo ci blé ngiree ñu jox ko blé bu gën a rafet ñaari kilo ñetti kilo ci tàndarma ngiree ñu jox ko ñaari kilo ci bu gën a rafet loolu dañ koy tere lan mooy tegtal ba lama rawa cheykhan anna bilalan jaa ila nabi sallallahu alayhi wasallam bi tamrin burni bilal dafa indil yonent bi alayhi salaam ke tàndarma yu taaru mooy yu rafet yu am qualité ñu koy tuddee burni fa qaala lahu nabi sallallahu alayhi wa sallam min ayna haada ya bilal mu ne ko waaw bilal foo jëlee tàndarma ju rafet ji yépp qaala kaana indana tamrun radi'un fa bi'tu saa'ayni bi saa'in li yut'ama nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko man kay tàndarma jama yoroon sax tàndarma ji suufe la waaye tàndarma ji dama wax nit ñu jaay ma ku ma jox tàndarma ju taaru ji ma jox ko ñaari tàndarma ñaari naam ku ma jox kilo tàndarma ci ci li taaru ma jox ko ñaar ci lii fa qaala nabi sallallahu alayhi wasallam aw wax aynu riba mu ne ko cheet loolu day dëgg-dëgg riba nga def yow bilaal loolu mooy dëgg-dëgg riba aynu riba la tasal lu mel noonu bu ko defeti mukk walakin in aradta an tashtariya fa bi fa bi tamra mi ngi noonu bi bay in axar suma ashtari bihi mu ne ko bilaal boo bëggatee loolu la nga yor ci tàndarma da nga koy jaay doog a jënd tàndarma bi nga bëgg misaal yooyu lañ ci joxe woon ci dars bi passé dama yoroon masalan ñaari saaku ceeb ci non parfumé ma ñëw ci borom bitig bi ne ko dama bëgg nga jël sama ñaari saaku yi te jox ma benn saaku parfumé ngeen jëflante ci loolu islam du nangu loolu yow kay da ngay jël sa par non parfumé jaay ko ba pare loo ca mën a am ci parfumé nga jënd ko façon jëflante bu mu mën a doon it loolu lay doon waaye maadaama jins bi benn la kenn du ko gënale non loolu kon mbokk mooy bu jëkk bi amma ñaareelu façon riba bi an yubaa al jinsaani al muxtalifaan ka zahabi wal fidda mooy ngay jaayante ñaari mbir yoo xam ne dañoo wuute ñu mel ni kii indi woon ooram di ci jënd xaalis awil burru wa tamru bi ba'diha ba'dan wala ki indi woon blème bëgg ca tàndarama di ko jënd leen ci la ca des ahaduhuma haadir wa saaniyuhuma ghaib fekk benn baa nga teew ba ca des nekku fa wa zalika li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam la tabi'u minha ghaiban bi najiz bu leen ca jaayante mukk loo xam ne dafa faddu nekku fi ci loo xam ne dafa teew wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam biu zahaba bil fidda yaddan bi yadd jaayante leen or ak xaalis su dee loxo ak loxo wa qawlihi azahabu wal waraq lii di or ak xaalis riba def leen ci jaayante ci riba la illa ha ha lu dul mi ngi nii mi ngi nii kon mbokk gis nañu riba bu njëkk bi mooy kii li mu bëgg a weccante benn matière bi la islam ni su boobaa kenn du ko ëppalante ëppalante du ci am ñaareel bi ñaari matière yi dañoo wuute islam ne loolu dañ ciy d'accord kii masalan dafa indi woon saaku ñaari saaku gerteem bëgg ci benn saakoob ceeb islam ne loolu mën na nekk waaw léegi nag da ngay jël ñaari saaku gerte yi après ngi jël ma saaku ceeb islam ne déedéet fokk kay li muy amee mooy ci place bi lay doon kii day indi gerteem ci indi ceebam ngeen weccoo mi ngi noonu waaye du islam du nangu ngeen di weccoo ñaari mbir yu bokkul kii bosom teew kee bosom nekku fi loolu mi ngi noonu yaakaar naa temps yi ku déglu xabaar yi da ngay gis ne soble bi nee nañ demoon na bay jar kilo deux mille francs te presque avant semaine bi jeex wàcc na ba six cent francs loolu moo tax ba affaire yi ñam yooyu islam danaan buñ koy jaayante bu mu nekk ci loo xam ne benn bi day teew bi ci des nekk fokk ñaar yépp day teew ndax diggante suba ngoon prix benn ci ñoom yépp mën na changer li nga noonu amma bu dee ñetteelu façon riba bi asalis mooy an yubaa al jinsu bi jinsihi mutasawiya mooy bi ñuy jaayante ñaari mbir yi ñoo yem mooy dama lay jaay masalan benn saaku dugub dama la koy jaay boo may fayit saaku dugub nga may jaay nga may fay walakin ahaduhuma ghaib waaye benn ba dafa teew nasi'a mu nekk loo xame ne nii dañ koy leble ka an yubaa az-zahab bi zahab mu mel ni kiy jaay or ak or aw tamr bi tamr di jaay tàndarama ak tàndarama mislan bi misl mutasawiya ni mu koy jaaye ñoo yem gayra an ahaduhuma gaayib lu dul ne benn bi nekku fa li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam al burr bil burr riban jaayee blé ak blé riba la illa haa haa lu dul ne mi ngi nii mi ngi nii maana haa haa yeddan bi yedd ay munajaza muy lu ñu teewal ca loolu it mi ngi noonu ki nga xam ni dafa am façon tàndarmaam ki am façon tàndarmaam ki indi ñaari kilo ki indi ñaari kilo tàndarma yi bokkul ñu jaayante ko mu yemoo loolu islam dana ko nangu amma nag bu dee loo xam ne délai day dox seen diggante islam du nangu loolu su boobaa kay bi ñuy wax mooy kii buy jaay na ko jaayee ci xaalis kee buy fay mu fay xaalis waaye amma bu dee boro islam du nangu loolu loolu kon mbokk mooy façon ñetti façon riba yooyu nga xam ni islam da koo tere su dee da ngaa yor sa téere mu ne la riba ma al xulul wala ixtilaafi al ajnas riba nag du am cim njaayante su dee dañ koo teewal te la ñuy jaayante wuute la ñuy jaayante bokkul dañ koo teewal riba amatul ci loolu moo tax mu ne la yadxulu riba bay an ixtalafa fihi samanu wal musamman du dugg mukk ci riba njaay moo xam ni la ñuy fay ak la ñuy jënd dañoo wuute illa an yakuna ahaduhuma nasi'a lu dul benn ba nekk loo xam ni day dugg ci lu ñuy yéexe mi ngi noonu day dugg ci lu ñuy yéexe su boobaa islam du nangu loolu comme niñ ko waxe ci ci gannaaw gannaaw ba it mu ne wa huwa ghayru naqdayni ca fekk la ñuy faye nekkul xaalis ak or bu dee xaalis ak or dara néew ci xaalis ak or dara néew ci mais bu dee ni li ñuy faye lente ma aw ab dund la wala lu mu mën a doon fokk ñaar yëpp dañuy teew moo tax mu ne fa yajuuzu bayu zahabi bil fidda mutafaddilan dagan na nga jaay or ak xaalis gëne la ko wa bay ul burri bi tamr aw il milhi bi sha'ir mutafadilan man ngaa jaay sa blé wala sa tàndarma wala sa xorom wala sa orge fekk da nga koo gënale loolu lépp iza kaana yaddan bi yadd su dee am loxo ak loxo ay lam yakun ahaduhuma nasi'a ay benn ba nekkul lu ñu yeexe li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam iza ixtilafat hadhihi al ashya yii ngeen di jëflante bu dee daa wuute fa bi'u kayfa shi'tum jaayante leen ko nu mu leen neexe iza kaana yaddan bi yadd su dee ne kay loxo la ak loxo mi ngi noonu mu ne it kama la riban fi ma bi'a min ribiwiyaat bi naqdin xaadir aw ghaib riba du am ci loo xam ne biñ koy jaayante ci kaw mone lañ ko teg na doon mone ba daa teew wala nekku fi wa sawaun xaaba samanu aw sila na fekk xaalis bi ñuy jaaye néew fi wala marchandise ba ñuy jënd néew fi faqad ishtara rasulullah sallallahu alayhi wasallam jamala jabir ibnu abdallah fi safar walam yusaddid lahu samanuhu illa bil madina su dee ni waa ji daa ñëwoon di jaay ceebam tàndarmaam xaram lu mu mën a doon liñ koy jaaye xaalis bu doon te ne da koy jaaye marchandise dañ naan du dagan lu dul ñaar yëpp teew amma bu dee xaalis la koy jaayee su boobaa dana dagan mu indi marchandise mi jox ka koy jënd kooku bu subaa mu doog a ñëw fay kiy jëndit islam dana daganal mu joxe xaalis bi muy fay ba suba ñu doog koo livrer marchandise am ma joxati misaal yonent bi alei salaam ànd naag jaabir ibn abdallah waxaaleeg moom gileemam ba ñu d'accord ci prix yonent bi alayhi salaatu wasalaam bañ demee madina la koy doog a fay romboon na ci darse bi passé ba jaabir na ko d'accord naa ci njaay mi waaye charte bi mooy dama koy war ba yegg madina dama koy war ba yegg madina loolu kon da ngay gis ne islam dana nangu ci njaayante boobu mu ne it kama anna assalam ajazahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam li nga xam ne mooy assalam ca mooy commandé commandé marchandise yonent bi alayhi salaam daganal na loolu mu ne man aslafa fi shay'in fal yuslif fi kaylin ma'lum képp koo xam ne da ngay commandé na commandé ci natt bu ñu xam wa waznin ma'lum ak pesé bu ñu xam ila ajalin maalum ba ci dig bu ñu xam wa salamu yuqaddamu fihi samanu naqdan bu dee ne la nga xam ne commandé boobee xaalis ba ñuy fay la ñuy jiital wa yataaxaru almusamman ila ajalin baid la nga xamee ni moom la ñuy jaay la ñuy jënd nekk ci dig boo xam ne day sori mbokk salam boobu daanaka mooy li xew ci léeg-léeg sunu commerce bi li ñu tuddee commandé waa ji da ngay ñëw ci magasin bi di commandé masalan ay portable wala commandé ay tissus mu ne la tissus yi day dana ñëw ci fin du mois dana ñëw bis sàngam ñu xam tissus yi naka la demee su boobaa islam dana dagal commande boobu loolu la ñuy tuddee salaf loolu du dugg ci liñ jàngoon dimanche yële mooy jaay loo amul kii jaay loo amul kii daa ñëw jàpp ne kii kat am na lii mun na ko jaay moom mun na ko nang naam jël xaalisam ba pare di ko wëri mais bu dee wàllu salam wala léeg la ñu ko tudde salaf mooy kiy jënd si xam ne ne waa ju amul li mu yor mais bi sàngam la koy am loolee ñu commandé ko islam dana nangu loolu yonent bi alayhi salaam daan dund dafa am ñu daan jóge Sham di commandé waa Madina tàndarma da ngay ñëw joxe xaalis pour bis bu ngeen wittee seen tàndarma jox ma temps de soit bal am nañu ko daan def sax ñaari at jox ko masalan deux cent mille da ko ren da nga ma jox temps de soit déwén nga jox ma temps de soit loolu yonent bi alayhi salaam da ko da koo nangu allahuma lu dul am na ay règle yu ci aju te incha allah dañ ko jàng ci kanam moo tax mu ne day nekk ci dig boo xam ne dig bu ñu sori la waaye it day fekk ne la ñuy jënd xam nañ ko xam nañ kañ la war a ñëw mi ngi noonu su boobaa islam dana daganal façon njaayin boobee mi ngi noonu loolu kon moo aju ci la nga xamee ne ni moom mooy li ñuy tuddee asalaf mi ngi noonu jàpp naa ne su doonte ne it mbokk yi bala ñoo am ay question yu leen rëcc ñu jot a jàng nii koo xam ne amoon na ci ab laaj mënees na ko laaj wala mu ko fàtte bala ñuy dem ci leneen waaw bismillah naam naam ki nga xam ne dafa indi téléphone am mu jox ko téléphone bi teg ci xaalis loolee dara néewu ci loolee dara néewu ci téléphone du duggul ci loo xam ne ab dund la la nga xam ne nii moom la ñuy considérer riba mooy yoo xam ne dañ koy jël di ko lekk di ko natt wala di ko peser di ko dundee mais am ma kër oto téléphone lu mu mën a doon doomu aadama bi mën ngaa joxe ñaari kër sax teg ci xaalis pour benn kër mën ngaa joxe ñaari téléphone teg ci xaalis pour benn téléphone lépp loo xam ne ajuwul ci ab dund ajuwul ci li ñuy fayante muy or ak xaalis dara nekkul ci ñu gënalante ci seen diggante wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah waaw ma ki nga xam ne day ñëw pour indi ceebu parfumé ne la da ngay yokk ci lii la nga xam ne moom ngeen koy defee mooy da ngeen di jëkk a waxaale noo parfumé bi ñaata nga koy jëlee mu jaayi ko ko ci wàllu la nga xamee ni mooy prix ba ñu xam ni jaay nga ko parfumé bi mooy kon yoral na la masalan dix mille francs léegi nag yow boo bëggee la nga xamee ni mooy parfumé nga jël xaalis teg ci loolee jël ko li l'islam di bañ mooy yow nga indi poids parfumé jënde ko la nga xam ne mooy poids non poids non parfumé nga jënd ko poids parfumé nga xam ne ceeb bi moo jënd ceeb bi mais bu dee ne da ngeen ñëw ngeen waxaale nga xam ne parfumé bi temps lay doon ah léegi diggante mag non parfumé bi am na cinq mille francs nga yëkkati cinq mille francs jox ko parce que da nga koo jaay parfum bi ci temps su boobaa loolu diñ ko tere la ñuy tere daal mooy ceeb bi jëndi ceeb bi tàndarma bi jëndi tàndarma bi bu dee xaalis bu da caa dugg loolee da ngay gis ne dañuy considéré dafa jaay prix bali teg ci lii wallahu aalam naam bismillah naam ah laqa nasia nasi'a mooy lu ñuy yeexe mooy lu ñuy yeexe lu ñuy yeexe lu ñuy yeexe mooy loo xam ne nii du du du xolool du naajis mooy dañ ko yeexe mooy kaay jël tàndarma ji léegi nag nga indil ma ceeb bi bu suba wala indil ma ceeb bi bu ngoonee mooy lu ñuy yeexe mooy fokk mu doon loo xam ne day nekk yaddan bi yaddan mi ngi noonu waaw allahu ala ki nga xam ne dafa yoroon ay dollar heure boo xamee ni nii da koy génne zakat am na ñaari choix mooy masalan dollar yi nekkoon la nga xam ne nii moom mooy quarante masalan quatre cent dollars masalan quatre cent dollars yi mu jël dix dollars mu daal di koy mu daal di koy sarxe mu jël dix dollars sarxe ko directement su dee ne da koy da koy génne ci xaalisu CFA su boobaa li dollar bi jar tey li dollar bi jar tey taux boobu lay jël multiplier ko ak li mu yor ci dollar génne ko xaalis CFA. da ngeen noonu jour ba ba du du du considéré nam ko dikke mais li muy jar tey moom lay xool tooba génn ko xaalis CFA ñaar yëpp mën na nekk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam mi ngi mel ne rek ki nga xam ne dafa yoroon or fiir heure heure heure buy génne zakat du xool la fa mu la mu jënde or ba waaye day xool or bi fan la toll tey su ko defee mu daal di calculer nombre de grammes yi mu am ci or valeur am ñaata lay doon ci CFA mu jël CFA boobee sarxe ko ay masakin noonu lay demee wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal kon ñu continuer suñu bind bi kon mu ne kama la riba fima bia min ribiwiyat bi naqdin naam am loolu jàngoon nañ ko kon ñeente bi la ñu war a jël tey ñeente bi la ñu war a jël mun bayaanu ajnaasi ribiwiyaat suñu doon leeral ana yan façon la l'islam tëral ci wàllu lekk ne lii riba da cee dugg a ribiwiyaat ajnaas lii di ya ñuy jëf leen ci riba ay façon la wala zi alayhi jumhur min as-sahaba wal a'imma la nga xamee ne sahaaba ya ak borom xam-xam ya nekk dëppoo nañ ca huwa ann zahaba jins loolu mooy or or yëpp façon or lañu allahuma lu dul mbokk or tey jii da ngay gis ne tëgg yi dañ koy changé dañ ciy dolli la nga xamee ne nii ay matière ay xaalis ak yooyu loolu moo tax ngay dégg ay 14 carats 18 carats 21 carats 24 carats mais bu ñuy wax mooy or pur bi nga xam ne mooy oru 24 carats bi nga xam ne jaxaseeguñ ci dara gannaaw ba wal fidda mboolem façon xaalis yi ak lu ñu wuute wuute kenn waru ko ëppalante jins la benn lañu wal qamha mboolem façon blé yépp ak lu ñu bari bari benn façon lañu kenn du ko ëppalante mboolem façon orge yépp kenn du ko ëppalante wa anwaa'u tamr kulluha jins lépp lu ñuy tuddee tàndarma ca tàndarma ëpp na téeméeri façon tàndarma lépp lu ñuy tuddee tàndarma benn façon rek la ci ci ci ci boo koy jëflante kenn du ci ëpplante naka noonu wala xataani ajnaas lépp loo xam ne dafay nekk ay genre légume di ñore ci suuf yooyu yépp da ngay gis ne am na ca ay façon cër yoo xam ne dafa wuute dafay doon loo xam ne nii dafay dafay wuute ci façon yi nañ koy jëlee wal fuul façon ñebbe yi it yépp lu mu bari bari benn jins la wal xims mooy li ñuy tudde yenn ay pois chiches yooyu yépp façon jins la wal urs ceeb ak lu mu bari bari ay façon kenn du ko ëppalante benn façon la wa zurra la nga xam ne nii ba tey it moom la ñuy wax façon dugub yi yu sew yi yépp dafay nekk benn jins wa anwaawu ziyut kulluha jins lépp loo xam ne nii day génne diw yooyu it façon la wala asl jins lii di lem gi façon la jins la waluhumu ajnas yàpp yi ay façon jins yu bëri la walahmul iblu jins doonte ne ni yàpp giléem moom façon façon benn la waluhumul baqar jins yàpp nag yi façon la waluhumu da'n jins yàpp xar yi benn façon la luhumu tuyur jins yàpp picc yi benn façon la wa luhumul asmak muxtalifal jins yàpp jën ya itamit dafa wuute ay jins ala kulli xaal mbokk julit yii téere bi moo ñu ci yóbbu waaye jàpp nañ ni waa ndakaaru jëflante wu ñu jëflante yi bal du bëri sax ci Sénégal jëflante yi tuñu façon jëflante yi bon ba nga xamee lu ci bëri nit ñi léegi xaalis la ñuy jëfandikoo waaye kuy jël ab ab dund dem di bëgg leneen di joxe pour ñu koy jox loolee gis nañ ni ala kulli xal lu néew la kon bu ñu jëlee juróomeel bi day wax ne maa la yajri fiihi riba min al atima waaw ndax am na ana yan ci lekk yi yoo xam ne mënees na koo jëflante ëpplante ca wala yéexe ko ci kenn du ko tudde riba mu ne laa yajri riba fi misli fawaakih wal xudrawat lii nga xamee ne nii day nekk fruit yi wala façon la nga xamee ne nii mooy lujum yay ñor ci suuf xaal yaag naaja yaag ak yu demee noonu yooyu yépp da ngay gis ne ëppalante ci njaay islam du bañ loolu li annaha la tudaxar min jiha benn mooy loolu kenn du ko denc kenn du ko denc di ko dund ren ba déwén allahuma la dul xanaa suñ jamonoy tey walam takun fi zamani al awal mimma yukaal aw yuzanu min jihati al uxra te it buñ demee ci jamono sahaaba ya loolu nekkul woon luñ daan jël di ko natt wala ñu koy peser ci beneen côté te jàngoon nañ bu njëkk ne li ñuy tuddee li ñuy bañ ci ëppalante ci lekk mooy lépp loo xam ne benn dañ koy dundee te dañ koy mën di peser wala ñu koy mën di natt kama annaha laysat min al aghdiyat al asasiya te loolu it bokkul ci dundu fondamental yi nga xam ne doomu aadama yi mënuñu ko ñàkk kal xubub lu mel ni pepp yi walluhum wala yàpp yi al warid fiha nassun sarih sahih ani nabi sallallahu alayhi wa sallam ci loolu nga xam ni dafa wér ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne lii di pepp yi ak yàpp yi kenn du ko jël di ko ëpp leen te su dee dañoo bokk jins ah mu ne kal xob simaye mu lu muy wax lu mu bëgg a wax foofu simaar non simaar waaw simaar xëy na kooku seen téere moo ko indi waaw man sama téere indiwoo ko waaw waaw waaw almis al fawaake wal xudrawaat la indi waaw simaar it mooy meññeent yi rek waaw mi ngi noonu mi ngi noonu léeg-léeg téere yi am baat yu ñu bokk kon loolu mbokk mooy la nga xamee ne nii mooy li li li passé bu ñu ñëwee nag ci la nga xam ne ñun moo ñu gën a itteel yow mi yor sa téere mu ne tanbihaan mi ngi lay jox ñaari gendeeku ñaari attirer attention al awwal fil bunuk mooy lan la l'islam xam ci banque ci banque mu ne al bunukul xaaliya banque yi am suñ jamonoy tey fi saairi l aalami l islaami ci la ëpp ci dëkk lislaam yi aglabuha yataamalu bi riba la ca ëpp la muy jëflante mooy riba bal ma wudi a illa ala asaasi ribawiyin xaalis bal banque yooyu yëpp sosuñu ko lu dul teg ko ci baasu riba banque riba moo ko tax a jóg ñu ngi noonu riba moo koy dundal mu ni fala yajuzu ataamulu maaha illa fi ma aljaat ilayhi darura du dagan yow julit ngay dem di jëflanteeg banque yooyu lu dul loo xam ne lor moo ko waral ka taxwil min baladin ila axar mi ngi mel ne transfert ba ngay def xaalis diggante dëkk ak dëkk wa binaan ala hada mu ne bu ñu tegee ci lii day faqad wajaba ala al ixwati salihin min al muslimin dafay war ci doomi ndey yu baax yu bokk ci julit yi an yunshi'u lahum bunukan islamiyya ba'ida anir riba mooy jullit ñi war nañoo xalaat créer ay banque l'islam yoo xam ni dafay sori riba xaaliya min sa'iri mu'amalatihi yoo xam ne day mucc ci mboolem jëflante yi nga xam ne dafa am ci riba te loolu donte ne ni téere bi bu mu ko bindee yàgg na lool gis nañ ni at yu mujj yi am na lu ñuy génne tudde ko ay banque islamique yoo xam ne tudd nañ ko banque islamique yàlla nag moo xam ndax lépp tëre ne ci banque islamique ala kulli xaal moom lam ca wax mu ni benn misaali ngi nii ci banque boo xam ne day dëppoog la yàlla gërëm jullit ña mën caa jëriñu وها هي صورة تقريبية للبنك الإسلامي المقترح إنشاؤه benn melokaay ngi nii boo xam ne nii misaal la bu muy joxe te banque l'islam boo xam ne dañuy proposer pour ñu sos ko yajtamiu l ixwatu almuslimuuna min ahli lbalad ay julit ñoo julit ñu nekk ci dëkk ñooy dëppoo ويتفقون على إنشاء دار يسمونها خزانة الجماعة ñu créer benn kër goo xam ne dañ koy tuddee trésoru mbooloo mi ay dencub mbooloo mi yaxtaaruuna laha min baynihim man huwa xafiizun alim ñoo tànn ci seen diggante ñoo xam ne ñu wóor lañu mën a sàmmaalal waaye ñu am xam-xamit ci nu ñuy saytoo alal yatawalla idaratuha wa tasyiri amaliha ko defee kooku nga xam ne moom la ñu tànn mooy féetewoo direction banque ba ak yombal jëfilin ya muy jëflante wa takunu muhimmatuha hadhihi muhimmatu hadhihi alxazana maqsuratan ala ma yali su ko defee loolee nga xam ne dañ koy tudde banque muy denc boobee ñu tënk ci juróomi mbir yi mbir bu njëkk qabulul idaat ay xifzu amaanatil ixwaan mooy ñuy nangu denc ya te mooy kóolute ña nga xam ne ñooy julit ñi ñu ko fay denc si biduni muqaabil ci loo xam ne duñ leen ca laaj dara ñaareel bi al iqraad fa tuqridu al ixwatu almuslimin quruudan tatanaasabu iraadaatihim aw makaasibihim bila faida su ko defee julit ñi ñu lebal leen ca la nga xamee ne nii mooy dëppoo la nga xam ne mooy seen bëgg-bëgg yañ bëgg ak la nga xam ne mooy faggu wi ni ñuy faggu ca bor boobee heure boo xamee ne nii day ñëw dañ koy jël di leen ko jox duñ ca teg benn intérêt ñetteel bi al musharakatu fi maydaanil falaaxa alal joojee ñu fay dajale nag ñu daal di koy investir ci place yi nga xam ne wàllu mbay la wa tijaara ak commerce wal bina lu jëm ci wàllu tabax wa sanaa lépp loo xam ne dafay jëm ci wàllu technologie fa tusaaxim alxizaana fi kulli maydaan su ko defee denc ba muy kërug denc ga daa di bokk ci bépp place yura annahu yuxaqiqu makasib wa arbahat lil xazaana nga xam ne wóor na ne buñ fa dugalee alal ji dana mën a jur ay bénéfice yoo xam ne dañ koy delloo ca kees ga ñeenteel bi al musaadatu ala tahwil umlati al ixwan min baladin ila balad bila ajr ñu fexe ba di def transfert ci diggante jurit ñi di leen mën a transférer seen xaalis diggante dëkk ak dëkk ci loo xam ne ni banque bi moo koy gàddu ida kaana laha far'un fi lbaladi almuraad tahwilu ilayhi su dee na kay banque bi am na agence te dëkk ba nga xamee ne nii dañ faa bëgg a toxal alal ja ñeenteel bi almusaadatu ala tahwil alumlati alixwa naam waaw wala boog juróomeel bi juróomeel bi ala rasi kulli sana ala rasi kulli sana tusaffa xisaabaatu alxizaana heure boo xamee ni nii at bi ñëw na ñu daal di nag xool daal di def expertise xool la nga xam ne mooy alal ja banque ba am yépp wa tuuza'u al arbaahu ala al musaahimin bi xasabi suhumihim fi l xizaana su ko defee lu ca ruuse ci bénéfice ñu xool ña fa amoon ay compte ku nekk ñu fexe jox la loo xam ni dafay méngoo la nga xam ne moom nga am ca banque ba ala kulli xaal lu mel nii soo demee tey ci li ñuy tuddee banque islam ci lu mel ni la ñuy woo nit ñi donte ne ne léeg-léeg it mën na am ay yenn gàllankoor waaye ala kulli xaal jullit ñi mënoon nañu am banque yoo xam ne dana mucc ci riba te it bu ñu xoolee crise bi fi amoon ci jamono yi paase lu jege ay manqué ay dix ans yooyu bokk na ñi ci gënoon a mucc ci crise bi mooy liñ daan tudde ay banque islamique ñoom ñoo ci gënoon a mucc loolee kon mi ngi noonu suñu boroom lépp lum ñu xañ danañu ubbil bunt boo xam ne buñ ca jaaree man caa mucc loolu kon mbokk moo aju woon ci wàllu dars bi ñuy mën a jël tey dafa mel ni noddu géegi jot na bu ñu noddee ba pare ñu dellu nag ci question yoo xam ne dana aju ci dars bi ak question yi ajuwul ci dars bi yépp mi ngi noonu wallahu aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain waaw xam na am na kuy laajte ci internet bi mu ne ndax moom zakatam mën na koo jox frère am naam sa zakat mën nga ko jox sa frère su dee ne yeyoo na ko su dee ne dafa doon faqir su boobaa moom moo gën a yey sax te ña ngay jox sa zakat mi ngi noonu amaa nag jëmmi nekk sa frère rek te du faqir su boobaa loolu kenn du ko jox zakat mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah waaw naam taxawaayu arafaat mooy ponk bi gën a rëy ci aj yonent bi alei salaam dane alxajju arafa aj buñ koy wax arafaat moo tax benn bis la ci at mi su la rëccee jeex na ba déwén rek leneen lu dul loolu mënees na koo dabantal mais bisu arafaat moom bu la rëccee jeex na loolu moo tax ba yal na yàlla fay gouvernement Arabie saoudite da ngay gis ne bisu arafaat mboolem xujjaaj yi nekkoon ci hôpital yi dañ leen di dugal ci ay ambulance yóbbu leen ca hôpital yi nekk ca Arafat yëreen ñu teewee ko gannaaw boo ñu doog leen génnee ndax lu tax mooy bis moom bu rëccee si fini mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam waaleykum salaam wa rahmatullah naam képp koo xamee ne nii dafa nekk faqiir ak lu ngeen mën a bokk na doon say frère la ñoo say doomi frère la ñoo say nijaay ak say lu mën a doon la nga xam ne moom la ñuy seet daal mooy faqi dañu zakat doo ko jox say wayjur doo ko jox say doomi bopp doo ko jox sa soxna waaye bu dul ñii keneen ku mën a doon loo mën a bokk ak moom li ngay xool kay mooy ndax moom faqiir la wala du faqiir faqiir la dagan na nga jox ko zakat dagan na mu lekk zakat du faqiir waroo koo jox zakat bi boo xamee ne da koy lekk buñ ko ko joxee wuru koo lekk da ko war a jottali mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw bismillah naam naam loolu nga xam ne dafay jëm ci yenn wàllu assurance da ngay cotiser lii cotiser lii après ñu tegal la lii mbokk façon jëflinte boobu l'islam nanguwu ko te incha allah mooy nekk suñu premier dars bi dimanche bi di ñëw mooy li ñuy tuddee taamin islam nanguwul assurance lépp loo xam ne da ngay cotiser man caa gagné lu ëpp la nga cotiser man caa ñàkk loo xam ne nii tolloowul ak la nga cotiser façon jëflante boobu islam du ko d'accord la ca borom xam-xam yi di may mooy lu munta ñàkk mooy assurance oto yeeg nga xam ne moom mënoo ko ñàkk def waaye dem di assurer sa bopp wala assurer sa kër wala assurer sa njaboot loolee façon la boo xam ne nii islam du nangu loolu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam naam bismillah non waxaatal ma dégg nga ne waaw waaw waaw pour moom moom mi jotagul ceebam jaay ceeb bi déedéet marchandise goonoo koo jaay ca moomoo ko kii daa ñëw ci borom bi bi def ci moom lu ñuy tudde salaf moo di ne ne commandé ne loo xam ne ni ñëwagul wóor na la dina ñëw fin du mois léegi nag ci diggante bi moom mu jël loolu mu commandé jaayaat ko déedéet bala ngaa jaay dara day dugg ci sag moomeel nga jël ko même bu dee ne mi ngi teew ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam bala nga ko jaay déplacé ko bu ko bu ko jaayee fi nga ko jëndee loolee kon da ngay gis ne nit ki mënagoo la jaay loo xam ne moomagoo ko day dugg ci li ñuy tuddee bay uma laysa indak salaf boobu mën a dugg ko salaf sur salaf mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal waaw bismillah naam waaw commission loolu su dee ne dañ ko wax au départ loolee dara newu ci mooy jaayal ma lii commission bi nga ci am mooy boo ko jaayee danaa la jox temps wala nga ne ko léegi day lii dama koy jaay man daal maa ngi ci bëgg masalan cent mille yow nag loo ko jaayee yaa xam loole da ngay gis ne dara nekku ci mooy li courtier yi di def rek mais li li problème bi rek mooy ngeen leeral ko avant ngeen di dugg ci transaction bi mooy su ma ko jaayee lii laa ci am loole da ngay gis ne bu amee islam du bañ loolu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam wala kulli xaal bu dee ne ci li ñuy wax rek ci problème mu banque yi ku ne xam na ne ni mooy nattu bi ñu ci yàlla nattoo bokk na ci lu ci bëri ci doomu aadama yi xaalis yi nga xam ne dañ koy am dañ koy déposé ci banque yi suñu ko déposé ci banque yi am na ñaari compte am na ci ay compte courant yoo xam ne yow mi déposé yow yaay fay banque bi yaay fay banque bi loole di ci borom xam-xam yi di wax rek mooy da nga war a yegg ci loo xam ne loru nga ci sa xaalis nga koy denc sa bopp nga doog koo jox ab banque ndax banque moom boo ko joxee riba la kiy jëflante amma bu dee lor moo la yóbbu ci loolu tu es obligé nga def ko rawatina ñu ngi dund jamonoy tey yoo xam ne nii bari na ay mbir yoo xam ne dañ naan doo ko fay ak ak xaalis liquide masala lu mel ni impôt impôt impôt yi rek impôt kër yéeg yi rek boo demoon tey impôt dañ naan la bépp mbir boo xam ne daa passé cent mille francs duñ ko nangu liquide chèque rek lay doon donc tu es obligé nga am compte kooku yooyu moom dañuy loolu ko waral benn di mooy li ñu tuddee compte d'épargne compte d'épargne moom banque bi moo lay tegal xaalis xaalis boobu la banque bi di tegal loolee da ngay gis ne borom xam-xam yi dañ ca am ixtilaaf am na ci ñoo xam ne dañoo topp seen bànneexu bakkan léeg-léeg ñuy bëri wax ci suñu rajo yi naan dagan naa lekk waaye ñooñu du ñu ay borom xam-xam seen bànneexu bakkan la ñuy topp parce que dañ naan rek banque bi day liggéey ci xaalis bi kon niñ la jox dagan naa lekk déedéet beneen bi mbir bi kay mooy yow mi fa déposé woon un million ñu dem ba fin d'année banque bi ñëw na la sa un million dama fi déposé woon kat jur na cinquante mille cinquante mille yooyu ndax yow dagan na nga jël ko daal di koy sarxe doo ko considéré ci sa zakat am na ay borom xam-xam yoo xam ne loolu lañu wax dañ ne cinquante mille yi da nga koy jël nga sarxe ko te doo ko considéré ci sa zakat ñu ngi noonu am na ñoo xam ne ñoom dañ ne déedéet yow un million nga fa amoon da ngaa loru woon ba ñëw denc denculoo banque bi sa xaalis nga denc fa un million wala un milliard yaa xam heure boo demee ba soxla sa xaalis jëlal sab xaalis la ca des nga bàyyi ko fa ñaar yi yépp da ngay gis ne ixtilaaf la ci borom xam-xam yi am képp koo xam ne nii am na bu mu cay jëlit moo xam ne lu mu ci jël am na borom xam-xam yu ko wax lu mu cay def mu def ko fekk yàlla moo tax mu def ko waaw jàpp naa ne mbokk jullit waxtu bi di ci des ah ah ah waaw waaw loolu damay mooy loolu mooy problème yi boo gisee borom xam-xam yu bëri di moytuloo nit ñi jënd ay action mooy multinationale yi nga xam ne ñooy tëral action yi la ëpp seen jëflante riba la xaalis boobu ñu jël dañ koy dugal ci ay banque muy jur ay riba riba boobu la ñuy mujj di di di di di séddale seen actionnaire yi moo tax lu bëri ci borom xam-xam yi di moytuloo ñuy dugg ci n'importe quelle action di ko jënd lu tax mooy ñooñu nga xam ne ñoom ngay jënd action bi dafa mel ni yéen a bokk tey ab boutique bu ngeen di jaay yéen a bokk tey mbir mi actionnaire nga ci mbir mi te ñoom xaalis bi wóor na la ni la ci ëpp ci riba lañ koy dugal loolu nag ay yeneen i mbir la yoo xam ne mi ngi noonu la ñëw ci hadis rek mooy jamono ngi ñëw balaa adduna tukki doomu aadama yi ku lekkul riba da nga lekk poussière bu riba ala kulli xaal jullit bi moom moytu kemtalal kattanam te jiital rek xam ne la nga xam ne mooy la néew te tey du yem mukk ak lu bëri ak lum la yéem yéem la yastawi alxabisu wa tayib walaw ajabaka kasratul xabis sa alal nga fexe ba ñoŋal ko ba lépp looy lekk lépp looy denc mu wóor na de lii lu dagan la lu tey la du yem ak loo xam ne ëpp na ko fukki yoon ca riba dugg ca wala leneen lu dul loolu dugg ca yal na yàlla wërsëgal ñu alal bi dagan ca tey yàlla jéggal ñu yërëm ñu wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain